mais doo topp ci benn grand di kii tubaab na il faut reculer pour devenir meilleur soldat ngay def bu fekkee dëgër nañu ba dëgër nga dem États-Unis liggéey li nga war a liggéey ñëw booy bu ñu ne dafay të nga jël ko bëre. est-ce que est-ce que sa ci yow la yéexee tamit. barke Mohamed Baye Balla. dafa am non mbër bu seeti ñi ma wax mbër bu ñu seeti nañ ko fay bu ñu ñu jox na rédicat man su pare Gouye Gui 145 kilos 150 kilos amatul Gouye Gui 125 130 moo nekk moo boo xoolee Gouye Gui regarde bien non loolu moo dàqate mais Gris Bordeaux xam nga mbër moo xam ne doo moom du wax ci yow neexul quoi te man nekkuma fi su ma grand fi zéro sotti beaucoup du ma fi nekk naan waaw ah. mais par na bëreeg man su paree pour bëreeg man suba mu taxaw su ah. paree bëreeg Boy Niang suba mu taxaw noo Boy Niang sax am fu mu jëm bu leen yàq lamb ji lamb ji dafa am catégoriation bu leen yàq lamb ji Boy Niang fan la jëm non Boy Niang Balla Gaye Eumeu seen guy gi ama Eumeu am na combat ama Eumeu Sène na Eumeu Sène mokkal la. Bombardier waaw yàlla taxaw ak jàmm mais man gisuma ko ci presse bi. te loolu damay ñaan yàlla mu taxaw ak jàmm parce que tamit ah. waaw kon waaw fële laa moom dañ ci sawar parce que Bombardier suma frère la suma goro la suma mag la damay ñaan côté combat boobu ñu ñaar ñoo koy pare. bu la indiloon avance Garga Mbossé nga avance am ca tolloo duñ ma wax ne ko jël ko man maay wàññi sama xaalis bëre moom ndax tolloo guñ kase. ndax buñ la ko indiloon a barke Mouhamed tolloo wuñ kase su ma demee bay tolloo ak moom bu bëree ndamu ko defuma ko dara nag su ma demee bay bëreeg moom damay kase bëreeg moom mais saa du palmarès du palmarès de. ba bala beneen question waaye bàyyi si gerte xam nga li may xoolee voilà <laughs>